tabarakallah ndem bu ñu noppee ndem ñaari kii la bu ñu noppee dañuy génn fële ma bëgg l'essentiel ñu waxee ko fii damay bañ euh, bu ko defee bu ko defee ñenn ñi bañ a xat-xatloo ñoom ndem am na fële itam bañ a xat-xatloo ñoom ñii ay gan daal bu kenn xat-xatloo ñoom waaw tey daam ngeen di def attention ci sécurité bi ci parce que damay bañ kii daal soo gi su ngeen gisee ma defee ko nii mooy bëgg mu xaw a waaye ni ngeen organisé wu dafa xaw a doy waar ñoom bari jàll am na fi ngeen leen teg nii ci kii lii la ñu waroon a nekk waaye lii daal ñu kii tey fee dafa tàng xanaa ma kii ma li may résumé fii rek ñu dem fee na ah sëriñ bi Ousmane daa nekk fee. waaw mi ngi ko waaw. waaye oh, waaye nag te fële leen waaw fële leen auzu billahi bismillah inna waliyallah kurubu ahli badrin al usudi أخذت عداية والنفط حسودي رب السماء والأرض دورية مها جن بالما دنو باخو بني تامبلي دي جوتال اي كادو di njëkkee waxi ku tedd ki ci sunuy kàddu ndax li nu ci sàkku barke ak réussite loolooy waral ndax danoo nekkul kuy tiit waaye ginnaaw tuub gi ak jéggulu gi لوجه الله تعالى nanu siggi bu توب ابليس ndax kon dañuy seug bu ëllëgé ci kanam ko tedd kin bu nu seug iblisu farra wa axastu ma nafa min hadhihi dunya wa durrahan dafa nañuy bàyyi xel hawa ak nafs iblis du ñu jege nafsan bi nafs waxi ku tedd ki la ca lawhil mahfuz lu muy wax lu nekk rek na ngay bawoo ca mahfuz may seede seedeel waa àdduna waxuma waa réew mi sama cant ci ko tedd ba daw mi fu murit nekk muy bu mag mbaa muy bu ndaw jaarale naa ci ak cant gu mag du ndaw moo xam góor mbaa xam moo xam jigéen adduna bi bamba fii kulli makkaan mooy adduna bi nit ñi ni ñu toll ak njanaaw yi na samay cant toll ni ñoom màggaa yi ba mbis yi laa bëgg a wax ñi di soppee ku tedd ki Cheikh amadou Bamba mi soppee Serigne muntaka yàlla fi gën a suñu xalifa bii yàlla na fi gën a yàgg gis ngeen Matlaboul Fawzayni barki démb li mu wax Baay Faal ba ci démb ñu indil ma juróomi bayit yu mu ci tànn ni daf koy def xaal muy juróom yu mu tànn moo tax bi may génn juróomi si ngoom laa seex bu kenn mi ngi muliñ nga xet maa ko seex faw ma xawal tey waa adduna bi kuy ko tedd ki sëñ Muntaxa doy na ci tegtal ci ko tedd ki juróomi bayit yi 97 la woon la ko waxoon ci ziaru xisbiya ca Porokhane fa kullu man xadamani aw zara hmm? wa kullu man xadamani aw zara fa najjihi waxfir lahu aw zara baax yow li tax ma teg la fi dinaa ko wax ma ngi ca kanam saa yu jotee dinaa ko wax wax fir lahu waaw foofa la tàmbalee Sëriñ Muntaxa laay nettali ay waxam 97 la ko defoon ba baag léegi ñaata la du 26 ans ngeen baal ma nag damaa tàmbalee rajas rek waaye damay alternet damay ñëw ci wesar daf na juróomi bayit yi tegaloo tàmbalee fan na tàmbalee fa kullu man xadama nii aw zara fa na jihi wax fir luhu aw zara sëñ bi baaxoowul sax yow di Ahmed yow mi ko xam baaxoowul sax di faral di waxi bayit mbaa boog di wax ay bayit di ko firi waa xisbu yi xisbu tarxiya ñoo ko doon ziare Poroxaan mu laaj leen Matlabul Fawzeyni abyaat yi ñu ne ko ñaari téeméer ak fanweer ak juróom-benn mu tànn juróom yi ni yooyu da koy yëngal man yooyu démb ba tey man yooyu ma yëngal lu yëngal xalifa bi dina fi bàyyi dof loolu moo tax ma bëgg a wax waa Sénégal ni leen ak lu mën a xew solution baa bi ki wax lii te cee yamu ca teg ba egg ci wal tak fi nii aza jamiil alamin ñu ne déedoote mu ni wal aza fihim azaya fuk azaya loolu defa nga ne yow di ko nangu mbay moom rek jàll na ko nangu azaya waaye bu nu xoolee rek sirri xabirun li dox fil ba xal bi wal badani waxinam yooyu astafirullah min samhi yu min basari yu min zamiri yu min fikri yu min kalimi waxinam yooyu te fekk ñun lay waxal loolu ñoo ko moom jegew ko fenn ndax li yàlla jox yonent yi yépp di leen yónni moo donnandoo yépp kon yooyu jigéew ko fenn ma bëgg wax waa Sénégal bu nu tuubee ba noppi nañ ci tegu cant alhamdu wa shukru ma an lillahi jooju mu wax ala nabi wala di abdillaahi wal baladu tayibu yaxruju nabatuhu te mu wax yàlla lam ko ca wax wajjal xal bii ba mu demee di muudu muudu ji dama ne ko na ñëw ba mu ñëwee ku ne gis na taxawaayam juróom-ñaari at yu njëkk yi bi ak juróom-ñaari at ya ca topp ak sumeeku gëm a sumeeku ci moom ak ak ni situation bi demee fi mu toll nii génération boobu ma fay dégg sukkoor yi bay boo ñu gaaw te la fa nekk ñu ko ñëpp tuddul woon sukkoor yi ku tedd ki moo ko tuddee sukkoor yi ndax la fa daan jóge di dem ca moom waaw ga dafa am mbir lu ñu fa denc te bu ko jàppee waaw yii ñuy bind sukkoor yi gi muy rek waaw boobu déet jàppe ko waaw gu malaaka waaw gu malaaka moom day toll ne adduna njëkkante la nag waaw te boroom boroom ngërëm lay boroom ngërëm ma nga fa donc wut wàllu adduna baa ngay wutum koom wala looy wut mbir yaa ngi sukkoon damay bëgg loolu moom damay encouragé ñi nga xamante ne bii am na yéene yi jàppale ko fa ñooñu lay encouragé hmm. waaye nag di waxaaleeg ñi ci des ndax itam na mbirum Serigne Touba fa nekk mu jaare la ko ci ceer ceer na jox ca nóoré ni wàlla dox nag ba nóoré ni ni ko tàcc ni sukkoor yi ni Touba sukkoor yi Hmm? Touba ta marbuta la ak waaw sukori waaw nañ ma déglu foofu ak yafa nar a xew ci kanam damay bañ di wax wax yoo xam ni ëllëg ki gis bi ma jóge fi ñu ne moom ba ci dem ba Ndiaye da doon wax ni léegi da kii da doon préparé dem non man je n'ai nulle part bi ma fenn nulle part man dafa am lu may lijjanti sama diggante ku bu nekk fii ba ca kanam mhm. su ma ab lijjanti la rek ni muy lijjanteeg boromam noonu laay lijjanteeg moom naa bon leen lépp lépp lépp lépp lépp biir ak biti ba des li ma mënut a bon leen mooy jërëjëf Sëriñ Tuuba jërëjëf Sëriñ Tuuba chakarami hinda jamii ay jun dihi loolu la

m'a proposé Al Khadimi a proposé wa de man Modou Mbacké il m'a proposé moi ñu amal référendum à la place de l'élection Le peuple sénégalais ndax pas nañ projet société ku tedd kii wala qui ndax nangu nañ le réalisme africain tiré de ses enseignements wala déet ñu laaj ko peuple n'a pas de nañ constitution bu bess boo xamné religieux yi dañ ci gis sen bopp looloo gën di farata ay élection xiroo ka hmm ñii di dëgg ñii di musique ñii di sànni xéer ñii di lu nekk nit di ko def waaye na ganna yo rek ay bayit ben baat bo mokal ci waxi ku tedd gi ci beuy bu meuna doon ci khasida bu meuna doon mo raw kanu borom ko wax ci samay wax kitaab ba ci naabat ngeen organiser wo commune bu nek man ngeen am cellule bo xamanteni bi du def dara du dul di surveiller xale yi nga xamanteni bi dañuy dara du dara lu yomba organiser la waaye nak ñun duñu état <laughs> citoyen lañu bo boo nek responsable ah. ak ñu nu àndal bokk ñu nu bokkal ngëm-ngëm loolu waaye du ñu état am na foo xam ne fa la ñuy a yem du dëgg bis bu état xamee nag suñu cër dëgg-dëgg état sénégalais ba ni lii seen cër ok mais loolu ay dugguñ ca état naa bien fait pour nous loolu Abdoulaye Wade wax na ko fee ca la bien pour nous ba kañ ba kañ walla bu ko defee nag defe loolu mooy l'essentiel moo di day am yu jëm gën a élection am bu kii bokk ak du ma wax yooyu ndax ñoom gisuma kenn lu nekk nag dégg naa ñu koy yekk samay nit ci presse bi te ma leen di man ñi leen jiite ma doon ku garaaw ku kenn xamul te mën a fayoo nu ne te dooma gis dooma dégg mais ma ko def du ma ko def rus naa ko ndax borom afawtu anil ada turan fii ci Jal Diop Saint-Louis d'abord avant Jal Diop Conakry Grand Bassam Gabon Lambaréné île du Gourouki kàmb ga te ñu ko tuddee fóor mare la gaa garab ga mettre au te bu ma ko sañoon a wax bañ ko mettre au poto avant ñu naan feu fekk na ma ne axrij ibaadaka sarmadan min rahmatik wa leen taqam minhum bi abqal niqmatik sallim xayaati waqfiha kulla alam wa mati yoon xul sarmadan liman zalam ñu ni feu ñoom ñëpp de daal ba ca gaawu ba mu soog a bind xasida ga ba ca gaaw ba àllarba ja ba ca gaaw ba mu soog a bind xasida ba jiital bayit yooyu mu wax foo mu taxawoon soo caateeg la mu cay teg mhm. su ko sañoon a wax loolu laay wax ni noonu la demee mhm. ba ca illa ya wàjjeex maa lahum xad kutiba min al xuyuri wa baqa iya tuba sama def na nga ko mentionné kooku nu am ko fii yu sew sewaan yii di xew ginnaaw ginnaaw bu nu ak ñépp au nom de tous les responsables de ce pays di baloo ak sénégalais yi yépp ni ma waree noonu la waree ñépp ni ma waree noonu la waree Serigne Moustapha Sy jëlal naa nag ñii di politique waaye non la waree bépp responsable religieux boo xamante ne bi événement yi fekk na def même bu la fi fekkul woon ci réew mi sax nga war a balu àq waa réew mi de sa famille de ses talibés ndax su njaboot gaa ngi fu nekk ñii def fi njaaxum xamuñu ku ca bokk ku ca bokkul xamuñu ku ci bokk ku ci bokkul moo tax da taxaw wax ni peuple sénégalais na ngeen ma baal àq ndax ak njaboot léppay nekk ci biir bañ a goro faaw nga gis ca yu sànq bu fekkoon ñëpp jub nañu kon kay na sawara tëj kon ko laa fa am yàlla bind àjjana bind sawara la am laa anna a minal jinnati wan naasi ajmain ñëpp yi jub mënut ta nekk nox nox war war ni bëccëg di amee guddi dina amee suba dina amee ngoon dina amee ngi ker dina amee naaj dina ni amee faw am ñu sàmba boy ñu sàmba boy dañ leen di génne société bi déedéet du yàlla leen bind Abdourahmane sama doon sax fam ay eh, moko don doon jàngalu bu demé bu fee bu demé fee na ko jang demé demee mom lay njëkk jang bala may continuer limay wax Sénégal lu nu dal nu na li mënu defal defal ko kenn ummatu muhammadiya dengen la ci ku tedd ki wax habibi jaahi man al dunya khayra ma akhtaru adduna bi dégg ngeen li mu wax malak malaka nii zikran wa kafaani daa a alquran tax muy wax bisu alquran baa ngi nii Ahmed Saloum bu paree fa la jëm moog Abdourahman ñu doon gi mu doon alquran jox nañu lépp waaye politique bii di am day dakk parti yi day tas parti yi day tas réew mi ci baatin dafa am ay règle ci baatin te axbaar yi saraayir bi moo dul dara muy nelaw day yeete ay réveil ak ay réveilleur di masawu ñi nga xamante ni bi ay lor dafa dal ci seen doom wala yu demee noonu di ñaawante jur yi nga xam ni seen doom da leen tër bay def ay ñu dul naka su dul noonu dañ leen di ñaawante leen ñaanal te xale yi ñu naxante ñoom jëm leen a éduquer éducation bi mënut a jóge fenn fu dul ci wax ku tedd waaye lu mu daan si ñëw salaamu ala man ni tabbaxal huda ndaayeen yow lu weesu tey jërëjëfe Serigne Touba moom ku tedd kii am lu ma ci baax dina am lu ma la ci dénk Tukul Sénégal sax taxul may wax loolu on en reparlera waaw maa ko tudd ko son bopp nga di bàyyam alaaji di Bassirou Diagne dem ci yalla sama nga foon ak Medoune Thiam pharmacien ma nga foon jàll ko nga xamni ne fàttewuma gone bu tuti nga ngay naa feeñal ci moom mbir dama na gis kurus boo jàppee benn yëkkati kurus gépp jóg na waaw Ablaye Godin ba may joxe ba may joxe numéro téléphone am ci géejaw noonu laa manee ne nag ne ne nag ne ne nu

wala leneen mooy solution amul tiit amul daw amul jaaxle amul jàq amul fayu amul ignorant ignoré déedéet wa taxlubanaa ala tawaajudi bila tanazuhin wala tahasudi wala taxasumin wala tadaburi wala tabaxudin wala tanafur am na shafa saqima tecc nafaal alima خaaral xadima ilan na jaay bu mu nu fi bàyyi ilan na jaay boobu ila bu mu nu fi bàyyi nan ca ànd mu soog ne xadd fakk kabala xadd ba sa fadd la fa dur walla wana fu jaay ni nga maar nan dem ca biti meeru way ci sey aala ak si way tamba doy na set làkku way te doy na set meeru Tá acabando a

yi nga xam ne yaakaar naa ne képp ku ko ku ko xam jamono yii xam jëpp li ci ëpp ci foofu la jublu te wax bari léegi ci biir loo xam ni gis nañ ni jafe-jafe la yoo xam te bi mi ngi fi te solution bi mi ngi ci Cheikh Ahmadou Bamba Khadimu Rasoul te it mi ko war a jaarale ci alxadimiya bi nga xam ni moom moo nekk ci bopp bi te naka jekk itam liñ mas di wax mooy njàngale mi nga xamante ne bi moom la ci Amadou Bamba Xaadimu Rasuul jàngale mooy loo xamante ni bi àdduna bépp mën na cee jàng tem ko wax ci mu leer yaakaar naa li wax léegi ci biir leer na nañ mu jox àdduna kàddu nag li wax ci turu njaboot bi wax ni liggéey bi nga xam ni mooy liggéey alxadimiya dafa fas yéene ma ànd ak njaboot bi ñu fas yéene yaatal liggéey boobu leeral ko ba Sénégalais yépp jot ci ñu ko ci anam bu leer a leer nee na bu dee ci wet bi ci des nga xam mooy côté temporaire bi nee na Arouna Coumba Ndoffène Diouf moom la jiital ci loolu kon loolu itam na ko ñëpp xame noonu waaye nag li ma bëgg a wax rek ci ak njàlbeen mooy ci leeral pour jëm ci académie mooy li bi leeral léegi ci biir. ndax ñun dafa am yoon woo xam ni moom lañ ñu teg gëmlooñu ko te defe naa ni tubaab yi ñoo ñu andil lu mel noonu te moo di baatu démocratie yaakaar naa loolu bari na ñoo xam ne ci biir réew mi tey mi ci nekk ni lépp lu ñuy wax te andiwuñ baat boobu jàpp nañ ni la ñuy wax dafa des te mën naa gis ni démocratie dafa am ci ñett yoo xam ne ci lay taxaw bi ci njëkk mooy exécutif beneen bi ci des mooy législatif beneen bi ci des mooy te exécutif mooy ñun nga xam ñun ñëpp ñoo bokk dëkk réew waaye nag faw am koo xam ne ñu dañ koy tànn ci kaw ni ko li ñu soxla ci réew mi te wax nga wax ni man nga ko doy na doy nañu ci pour ñu doxal alxadimiya kon loolu itam fekkee dafa jëm ci législative moom it dem ci di seen fenn fu nekk gis nañu lu ci na ñu ngi ci yëngu bëggoon naa ko leeral bu baax waaye lenn lu nekk ñu ci yëngu waaye gis nañu solution amul foofu ndax ku gis lii nga xam ni moo xew ci biir réew mi ñett at yii ak li nga xamante ne bii moo fi moo fi yàqu ci ay alal ci ay bakkan ci ay defante lu bon ci waxante ba te lépp ñu ngi ci kaw loolu lañ ko teg te taxul solution mën a am. jàpp naa ni kon solution bi nga xamante ne bii moo mën a sauvé aduna mën a sauvé Sénégal mooy lii nga xamante ne bii moom la sëriñ bi wax ni alxadimiya kon nag ni ko sëriñ bi waxee ñun na nanu maase ci tuub déggaloonte balonte àq te defe naa ay bii nga xam ne Cheikh Abdou moom la tànn fii léegi ni nga ko tàmbalee nga xam ni suñu borom bu fekkente ni mi dafa doon xol rek ci suñu tooñaange kon lu bàyyi kenn des ci kaw suuf waaye nag dana muñal ba àq boo xamante ni bu jafee ci coobareem lu muy jëfandikoo ak ñun mu jëfandikoo kon ñu gàttal ko foofu rek jërë ngeen jëf salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. dafa me ni waxoon nañu asalaamaaleykum di ko waxaat ndax ci biir ak ci biti bokk donte ba du koy wax ñi ci fii ñu ngi koy dégg répété lu baax moom asalaamaaleykum mooy jàmm yi yàlla yàlla nekk ci yéen rek wa alayna itam yàlla nekk ci ñun itam ah magi taalibe yi bu fi Bambis nekkee mel na ni na ko ñëpp di bàyyi xel waaw ndax na yor lu muy jiwaate ñu koy bàyyi xel dafa yor lu muy jiwaate li ma wax ci borom daaru sànq ca biir rek moom laay wax ci moom di sant kilifa yi fi teew Serigne Ousmane barki dem moo jaay rek la fi jógee ko noonu na dellu si ndax ma doy ci jëriñ ma alxadim yee sur le plan spirituel ndax ki mu doon ak njubam ak expérience rijaala ngi sëriñ Abdoulaye ne ne mel na ni nga mel ñëpp ngi ñëpp ngi fi soxna Ndeye ngi nii ak soxna Ndeye bu lamit ak pulo ca gannaaw ak ndax sax moom ci wetu nday Mbàkke la waroon na lépp waaye ñëpp daal ñëpp ndax yéen ñii kat wax dëgg yàlla bu ma dee xool naan ñi kii mooy kee kee mooy damay sonn waaye bu ma tuddee soxna Ndeye Mbàkke am Ndeye Thiam rek ak maam Fatou tudd naa ñëpp daal ñu ngi leen di sant ñu ngi sant ñëpp waaye dafa am ku nekk lu mu jàngale ci jégg rek xam nga wax naa ci biir ni yenn saa yi ma dégg yu ñu may sànni di ko jaar ci sama njaboot mais foofu faaw ñu seetaat mbir yi ndax itam bu fekkente ne sama njaboot bi ñuy def lu baax te kenn du ko wax moo tax ñii a dendale ay baax te nekk ci rajo yi télévision yi tey man maa terewaate duma am na xale fi doon xale bi fi doon def am lu mu doon wax ba ko xale yi jàppee maa intervenir yaayam di jooy ma intervenir mu tuub ko waaye day yomb waxtu na ko waxaat naan maa ngi koy tuub léegi te la Pape Alé ba ma ko wooloo fii yàggul dara bi mu daan am problème dégg naa ko muy muy wax ay wax ñuy wax ñu naan déglu naa déglu nekkuma ci yooyu doonuma ku ñuy yabe ci ay rajo mbaa kii

bokkuñu sax ay garaaw <laughs> yi non non non bokkuñu ay garaaw yi man damay naa naati te man ko sax dara waaw moom borom xam-xam la la man ab dof la te Moustapha Saliou nee na mu ne dof la baaxoo tubaab na tubaab mooy nite waaw waaye dof mooy faj bëggoo faj boo ko kay moom ku bëgg du faj man bëgguma wér waaye li ma xam laa jërëjëf Serigne Touba mooy faj lépp mooy solution shakartu rabbi laaha wallahu shakar kulliyati wa hinda jundihi zakara fa la ko waxee waaw am Mouhamadou Amine da xam nga du taar dañoo mën nga jógee ca Masal war faa gën noonu la dundoo nag dund bi point kon kon raté wu ma la déet waaye dinaa jaar lu may am foofu dama am sa wax sa su ndaw te awoon ma wax la turu dañuy nekk li di nekk li di nekk li xam nga boobu day dox di coupé rek ci ndox yi jàmbur yi rek nekk sonnet di coupé ndox yi rek di coupé ndox yi jàmbur yi rek léegi nag am fa benn gerte bu ko fa amee dina mettali di nettali ba egg ca ma wax ko turu ndaw sa ma ne ko waxal mun ko am noonu la tudd te ku xamul kat ku xamul da koy teg baatin ku taa du baatin wax ko sëñ Cheikh Diouf doon dund tey papa ñu sa fàddu danañ teg naan la tëdd la fa teg la <laughs> muy nii fi mu toll nii du ko teg baatin nga nga xam na ma waaye soo tollee mu ñëw dégg nga bu la gaañi saarne bu la kii léegi soo ko ñëw ah da boo ñëwee imam bi soo ko ñëwee imam yi yaa ah, ko baax moom sax moo moo nar a baax allah ndax yaa gën a bëgg nga daan di gis biir quand même waaye Ini kulli shay'in adab lu jotee day yomb nah, léegi rek danga may waxal alaaji mbàkk yu jëw yi ni ko man ca alxadim ya laay wootee sa classe bii fa nekk yi leen di boole ci imam yi nga xam dañu naan bi ñuy jëm bokk ci ay ya wax parti la waaw bu imam bi fi nekk ci parti béy boo nga teel a bàyyi bala ma koy parti waaw waaw waaw léegi nag ayca bi débat yi tax nee na la sa tamit boo xam wax sa tamit boo xam ne lu ma wax rek waaw wax naa leen a yu lëkk njuur baax tey du ma fi nekk naan di di intervenir rek waaw ci ku ñu duma yari Dakar dama dama doon dama wut cent vingt quatre mille yari Dakar loolu am na la siñ Saliou Touré nee na mu ne di dañ bàyyee du ma rek liñ leen di bon maama Ndeye Mbacke daan tërlu borom juróom benn fukki at ñu ko duma mën na duma ci dumante waaye bu ma la ŋaa bu ma la bu ma la ŋaaree rek boo ma jub waaw dafa am loo xamante ni bi nañu bàyyi caaxaan yi te wuy si ku tedd gi ci màggalu foofu hmm? ku man asaka sannahu biya fal yaqallib xalbu ها ha dafa ne kooku na fay waaye état na par état état bi dañ koy jox أخرج عبادة سردا من رحمتك طيب. ولتقم من باب كانت مكتك وبين تفتك تفجعوا بركة سبحانه لك حياتي فاكفها كل أكل yalxul saraf li man saraf moo tax seen xarfay ne wa mawti yalxul saraf li man saraf loola tax bu ñëwee fa ku nekk sa barray la Islam, wa ihsan tur iman tur islam tur ihsan Kutiba saat ini Kutibul hasta Jarak kort Aku tersta Ramesha Jarak kort aku tersta Bang Emel kini dunia perasa Mahir dahulu kata Lihat taruh Muhammad àdduna bi bi ko yàlla joxee itam li mu gërëm ba ko yonante bi tànnal tànnal yàlla gërëm ci àdduna bi jox ko la ca des da ko bàyyee ñi ci des mu moom lépp nag waaye teewul esprit de transformation mooy fekk lu jago nga jagal fekk lu tilim nga fóot fekk lu lëndëm nga leeral ko fekk lu bon nga baaxal loolu la fi nekk mooy malaas mooy mafsa amara ni rabbi bi am usariha bi annani malazun wa mafzahu fa man arada al xayra fi kilta yi daarayni falyaluz bi Dieu m'a donné l'ordre de proclamer que je suis un asile et dernier recours et compte veut le bonheur ici-bas et dans l'au-delà doit se réfugier auprès de moi. L'État, à vous. L'État, maï wor. Ñi jàng ba am ay wijaas ci nasara moo xam espagnol moo xam français moo xam arabu famille ma leen di woote alxadimee parce que bu

ndax ay day am soppi day am constitution bu bees day am doctrine bu bees day am luy réalisme africain nga tudd ci rek de l'enseignement du Cheikh Ahmadou Bamba Khadimou Rassoul man am na woy yoo xam ne bu ñu ma koy jox àjjana lay am yoo xam ne bu ñu ma koy jox jinne koy indi jinne bu góor mbaa bu jigéen mooy ci bari lool mu leen विकहत सम कल्वजित सिमन विकहत सम विकहत सम नि विकहत सम तो हपले मुहता सम अंतल जेता सिमन विकहत सम विकहत सम अंतल जेता सिमन विकहत सम विकहत सम इमे विकहत सम तो हपले dëgg bi yàlla jërëjëf kuy dégg rek si mel nga ko jaar xam na li ma wax jinne dañoo bari pexe kuy dégg rek jinne la gën a dégg jinne buy def dara la ñuy def di ŋaax ak di ma baatu baatu laa wax kat tudd mag daal tudd mag xaas tudd mag taatoor la bu ko neexee doon warax léegi xémaat bi ci juum bu bëggee doon fas doon ko bu bëggee doon xar ko bu bëggee doon jigéen bu rafet doon ko bu bëggee doon jigéen bu ñaaw ko jinne daa ma ne noonu moo tax bu di jigéen mu taaru mbaaru xeesal mbaaru takk bi nag rek nga defee ne nit bu leen neexee visible bi moo ñëw rek di duuxi leex lislaam ñu naqari dara la ñoo xamante ne bii bi ñuy jàpp bëri karité ñoo mën ngay nga ñoo yaa moo xam ne fa ñu naqari dara am na ci koo xam ne maa gëm daal si dama ci daj moo kii maa ah def jéegi ñaawaay boo xam ne kenn xamul fi ñaawaay bi ñëw Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul jërëjëf Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul may nañ la ko lépp lépp lépp ko dama dajale ay gërëm yaa wax ni a ñu ama ndaxte a du sama du Adama amoon moo mu nekk yow lii moo am amuñu sax yow ki nga doon dafay yore kun fayakun te ñu baax na ca diiwaan ñoom ñëpp saako saagar